xamee bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu bàyyi xel si réew mi ak si bitim réew ñoo ngi leen nuyu baax te di leen siyaare tey nag di samedi dëppoo le 14 septembre 2019 ñu nekkaat fii si Touba si pencum sëriñ bu Mbacké di bis bi nga xam ne waa daara Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos baaxoon nañ koo amal at mu jot te jëlee ndigal li si sëriñ si Ahmadou Mbacké xalifab sëriñ Souhaïbou di bis boo xam ne sëriñ bi dana see jox ndigal at mu jot ñu di ko amal fii si kër gi di ko defal sëriñ Souhaïbou Mbacké waaye nag mi ngi tàmbalee si màggalu sëriñ Souhaïbou gi nga xam ne day am si juróomi fani gi si sëriñ bi tàmm gum tàmm teewlu njàngum Hizbut-Tarqiyyah Daaru Xudoos mu bëgg si ak yaatal ngir xam ne ne bisu màggal gi dana xat-xataay boo xam ne ni mu bëgg a njàng mi du ni mën a nekke ngir taalib yi nga xam ne dañuy faral di siyaare si ginnaaw màggal gi nag si la woo waa daara Hizbut-Tarqiyyah Daaru Xudoos ngir ñu ñëw yendoog moom soo ba ngoon jot di yëkkati xaside si Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul si lañ jotee ndigal nag si sëriñ bi mu tàmm ñu di ko def at mu jot jagleel ko Serigne Souhaibou Mbacké ba tey jii nii ngeen ji liggéey bu am solo bi ni nga xam ne noonu la ko daara Hizbut Tarqiyyah daara Xuddoos di amalee. biir liggéey bu am solo boobu Serigne bi jël ku ñëpp ràññee ak taalibeem ak pasteefam ak taxawaayam si liggéey si Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul rawatina xasida yi di Serigne Hamsatou Mbacké moom Serigne bu dugal ko si biir liggéey bi nga xam ngeen ne bisub màggalu sëriñ Cheikh bu heure bu masaa ñëw sëriñ bi daana defal teraanga yu am solo yu takk lool te pasteefu di ko indil kii nga xam ne mooy ab xalifaam di sëriñam di léppam di sëriñ si Ahmadou Mbacke moom sëriñ Cheikh bu waaye sëriñ si Ahmadou Mbacke moom sëriñ Cheikh bu liggéey bu am solo bi nga xam ne waa daara Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos ñu ngi koy amal ñor na ko ñoraay goo xam ne dafay jox ndigal sëriñ Xamsatu Mbacke moom sëriñ Cheikh bu ndigal teraanga yu am solo yi nga xam ne da koy indil mu di ko dencal ba bis bi nga xam ne si la waa daara Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos di ñëw si kër gi ngeen gis teraanga yi noonu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Fallou Souhaïbou du kenn si Cheikh satu Mbacke moom Serigne Souhaïbou di ko indi ànd kaak mbooleem taalibe yi Cheikh Amsatou Mbacke yi nga xam ne ñoo nekk si biir kër gi. ngeen gis liggéey bu am solo boobu xam ne Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Souhaïbou moo ko indi jébbal ko kii di ab xalifaam di sëriñam di léppam di Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Souhaïbou. incha allah dañ leen di bàyyi ak image yi rek seetaan teraanga yu am nga xam ne Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Souhaïbou indil na ko Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke xalifa Serigne Souhaïbou si liggéey bu am solo bi nga xam ne waa daara Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos ñu koy amal tey mbokk kon ñoo ko gisandoo noonu waaye am tawféex ju rëy joo xam ne laloon si liggéey bi sa bàyyi ko sëriñ Xamsatu Mbàkke moom sëriñ bi noonu ngeen gisee teraanga am solo yooyu sëriñ bi di ko xool si bool yi mi ngi toll si arafi Touba di ñaar fukk ak juróom-ñett naka noonu carton pom yi toll si ñaar fukk ak juróom-ñett carton kanet yi ñaar fukk ak juróom-ñett lenn lu si nekk rek sëriñ bi jagleel ko arafi Touba. kon loolu di tawféex ju am solo joo xam ne sëriñ Xamsatu Mbàkke moom sëriñ Souhaïbou dugal na ko ci biir liggéey bi ginnaaw loolu nag sëriñ bi génn na teew si mbaar mi nga xam ne fi la daara ji di yëkkatee xasida yi يحس بالغزير لقد جاكم هزنا على خير مرسل عمانا بالباقي عن السر والوزير ginnaaw loolu jëriñu daara Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos di sëriñ Mbacke Cuun xam ne moo jiite mbooleem daara bu nekk ci réew mi ak bitim réew yëkkati na kàddu ci turu mbooloo mi yëpp biral ko kii di seriñ si Ahmadou Mbacke moom sëriñ Chouhaïbou ginnaaw bi mu noppee sëriñ bi Yacine Seck toftal na ci ay kàddu bi mu noppee nag jox kàddu gi bi mu yëkkati ay kàddu soññee ak kàddu ñaan jëmale ko ci daara ji. di jiite ci kàddu nag ak kàddu cant ak ñaan di ñaan sunu borom Mbàkke mu yàggal leen fi lool te mu ànd ak wér te Mbàkke li nga xam ne yéene ngeen ko ci liggéey sa maam bi nga amee si lu kawe njort yëpp zahiran baatinan sant nag ñu ngi koy def bu baax a baax ndax ku yokkul ku ne mu wóor na yokk nga Mbàkke nag ba ñu àndee ba léegi ci bis bi gis nañ si ak yokk ci fànn yépp yokk si jumtukaay yi ni ñuy liggéeyal sëñ saa su nekk mu ngi yokk jumtukaay yi ñu soxla woo ngir liggéeyal sëñ Tuubaa barab yi nga xam ne it moom lay liggéeyal sëñ Tuubaa mi ngi gën a yokk di gën a dëppoog nga xam ne moom lañ ko yéenee liggéeyal sëñ Tuubaa jumtukaay soxla it pour liggéeyal sëñ Tuubaa gën a jàppandi rek di jàppandi noo xam ne dangay mujj dem ba am kersa sa digganteeg digganteek Tuubaa da lay wóor ne moom rek la moo nekk si kanam loolu nag gis nañ cant gi ñu yokk ci loolu yokk giit noonu la yokkee ci wàllu mbooloo mi ci biir réew mi ak si bitim réew ñëpp ngi ñëw di ànd ci liggéey bi nga xam ne moom lañ liggéey Sëñ Tuubaa loolu nag ànd boo boo ko defee gis ak yokk nag war ngaa seeral baax a baax a baax jëmm ji na sant nañ bu baax a baax Mbàkke ndax yéene ji ak na nga xam ne moom nga ñu waxoon sa tàmbali lépp saa su nekk ñu si teg suñu bët yi naan nag si daraja Sëñ Suhaybu bi rek na doole ñu dogalaat rek ndax pas-pas liggéey sëñ rek la ñu am yéene ji nga xam ne moom lañ ci am nag mu liggéey sëñ Tuubaa bu sell ba nañ koy faral di waxee rek ëllëg yémal xiyaam bu ñu fa àggee ñu bokk si ñi nga xam ne féete nañ sëñ Tuubaa fenn te loolu tàmbali fii mooy li nga xam ne mooy pas-pas yi ne la ñaanal Mbàkke nga doole ñoo ñaanal bu baax a baax rek yokk gi gën a yokk ci fànn yëpp rek kattan gi gën a taxaw doole yi gën a taxaw bañ mën a motali yéene ba da am lu kawe njort yëpp kon sàmm sunu borom ci fànn yëpp daal te it uh, sëñ Sall waxoon rek lépp doon sëñ Tuubaa kese rek dara seytaane bañ see tàbbi ñooñu naan lépp doon suñu borom kese kese kese kese yéene ji dem foo xam ne fu yëpp la kon yaakaar naa damay gàddal kàddu yi rek kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa dafa mel ni sëñ bi lii sëñ Mbàkke wax di jëwriñu daara ji manees na koo jàppe mu baaraku liptidaa i may moonu lintiyaa yi kon xaw nañ cee mën a yem wante dafa mel ni ab doktoor ku fa dem te waxoo jenn tawat danaan ceel la te tey dañoo ñëw ci doktoor bi ci sëñ blaat la ñëw ak sëriñ ak sëriñ Sohaybu ak sëñ Saaliw man mii di wax ak yow ñoo bokk bokk mbooloo mii waxuma ñi ci bokk waaye ñi ko dégg képp dañoo bëgg seen aajo faju te Mbàkke Bàlla bari na ñoo xam ne si am nañu ay tawat bari na ñoo xam ne seeni liggéey mi ngi ranq-ranqi Mbàkke bu ñu am gàcce mukk ndax nit ñu xam kook teraanga ba ay bokkam yëpp ñëpp xam ko ab sëriñam xam àddiyam mu dem ba yàgg muy laal suuf daray àdduna jëru ko ci ab murit ñu bëgg na kon Mbàkke Bàlla jaaxale giñ am néew doole gi am lompooñ giñ am ñëw fii ci kër sëñ Touba gii bëgg fee fajoo loolu laa bëgg tey nga nangul ma ko loolu laa bëgg nga nangul ma ko loolu mën naa koo dégg waaw la ca toppaat mooy mbooloo mi su fekkoon tane ne dañ koy génne asaka asaka ji nekkut fii asaka ji néewu kon wa fiihimul xulafa sidiquma umarin usmaanuhum ma aliyu buxyatil ulama isxal bu usmaana fiihim kal xusaati maan amma salaasatu fal isaaru man a loolu lañ bëgg kon tey ci mbooloo mi ña nga Amérique ña nga Brésil ña nga Argentine ña nga Afrique du Sud ña nga France Europe gépp ña nga fa looloo tax ma wax ma wax kon way yooyu kon nag Mbàkke mbooloo maa ngi nii dañoo bëgg liggéey sëñ Tuubaa yi ñu jëf ci jëf joo xam ne sii kenn du ko nattable te suñ ànd bii ñu ànd ak yow nag bis ni tey jii dañoo bëgg nag bis buñ fiy delsi muy lu kenn du nattable daanu la fi fekk de maa la wax loolu waaye bëgg nag buñ dikkee soppi ku am gu kenn du nattable kon Mbàkke lii laa la dénk am na ci ñoo xam ne sii jafe-jafe yi am na na yam tey nag jërëjëf Mbacke. aouzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa lana Muhammad wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh eh, yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe Sëriñ Tuubaa yi ñu rawatina yéen seen daayira bi ñu tudd ko Hizbut Tarqiyyah bu Daaru Xudoos di ko tàmbalee ci seen kilifa seen jëwriñ ba ci ñu topp ci yéen ñëpp ñu ngi leen jot kàddu nuyoo ak kàddu yi cant ak kàddu yi ngërëm bu bàyyi ko ci suñu kilifa gii di sëriñ Cheikh Amadou Mbacke xalifa Cheikh Souhaïbou Mbacke eh, eh, eh, di nga xam ne sëriñ bi de ñu ngi leen xamal ne bég na bu baax ci seen teewaay fii ci barab bii di di ci teew bi itam nekkul seen njëkk jotaay si yéen ngi ñëw di ko seere si ngir xam ne eh, si jëwriñ Serigne Touba la te kenn ëppal ko Serigne Touba te te te cër bi am Serigne Touba teewul fi Serigne taxawaay Serigne Son bi ngeen jox ko bis bi ci xasida yi teew ko eh, di ko ko jàngal mu koy mu koy dégg eh, di ko seere si di ko nemmeeku kon xam na ne yéen ko xool jëmmi sëñ moom Mountakha mi fi nekk. ak mbooleem ñi ko jiitu ñëpp bët boobu ngeen xool moom foofu ngeen ko xool ba tax na kon euh, sëriñ bi am na ci mbégte ak ku cant ak ku ngërëm ci ci turam ak tur njëbu suñu soñ bu gépp te xam ne fii kat euh, ku sa aajanut faju doo fi ñëw ndax barab yi barabu sëriñ Tuubaa la sëriñ Tuubaa fépp la nekk waaye fii moom euh, na sëriñ bi nee naa ngeen xam ne fii sëriñ Tuubaa fi la ko ndax si xamum no soo fi la daal alxuraan ak Cheikh Mamadou Fadil ak ñeneen ak ñeneen barab bi mu dalee mii fii ci gi fi muy Daaru Rahmaan kon ngeen xam ne ku sa ajunta faju doo ñëw fii kon rawatina xasi Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ci ñu koy liggéeyal kon mi ngi leen ñaanal ci barke Sëriñ Tuubaa fépp fu mu deere eh, toolu Sëriñ Tuubaa bi jëw nañu bari na ku ne am nga coo waar waaye mu ngi waat seen wa seen ci lu bopp yàlla na leen di xasee yëkkati ko yàlla na leen suñu borom Sëriñ Tuubaa yëkkati leen noonee li nga jàng yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ci malaaka yi di ko tiitaroo ak eh, ak mbooleem gaa yu baax yi ak mboolem eh, yoon sama ak mboolem lancement yëpp yàlla nañ bokk di barkeel di tiitaru ci seen xasee di ngeen yëkkati Sëriñ Tuubaa fii ci kër gi te yàlla ko yàlla nangu te ajo ju ngeen ci faju yu ngeen ci fas rafeteen jot te xam ne ku sa aajo dafa doo ñëw fii ñaan na at mu jot ngeen yokk di ko di ko di fi teew di ko fekk te eh, yokk ci wërsëg yokk ci mbooloo yokk ci njaboot yokk ci lépp ak ku njëgal suñu borom ak ngërëm Sëriñ Tuubaa Euh, kàddu yi euh, damaa bett sëriñ bi wax ma waaye lu ci dëng rek nga xam ne mati doomu aadama la waaye ngeen xam ne euh, sëriñ bi sëriñ tubaa cëral na ko te am na cër te te am na cër te sëriñ tubaa sedd na ko ndax nee na maa ngi ko am na kàddu yu fi daaw jéeg la mu wax mooy sëriñ son bu mooy bunt bi bala fekkee ne jaar jariñoo da ngay jaar ci moom te loolu kenn naatalu ko kenn naatalu sëriñ tubaa sedd na ko te daanaka lim leen ñaanal bu leen jàkkaarloo yenn eh, bu jàkkaarloo yéen rek eh, ci xool leen ak xolum se xolum bu sedd ak yéenam rek ay jëf faju na loolu moom nattaluñ ko ndax eh, yu bari jaar na fi te gis nañ ci fan yu leer naa ñoo xam si yu fi jar jaar na te yàgg na te lépp xam nañ ko kon nga xam ne jotaay bi mu toog Cheikh Souhaïbou mate na ko te Serigne Souhaïbou nga ci moom Serigne Touba nga lépp nga ci moom ne ne xolu taalib yëpp dafa njot te dal te te seen te te fa njot baax baax te xam ne li ngeen liggéey Sëriñ Tuubaa nag mbooleem ñu koy seet ñëpp xoolam seet na waaye seen dikkin wii nag mooy yu ko gën a neex ndax amul lu sëriñ bi amul lu xasee Sëriñ Tuubaa yi tey ci ngeen di yëngu suba ngoon guddi bëccëg te kenn deful sëriñ bi lu gën a kawe xasida yi waaw loolu tam mi ngi sant jëwriñam sëriñ Amsatu Mbàkke soxna mi nga xam ne saa yi ngeen yégee ne war ngeen ko jàppal ko siyaara bi jàpp ne ne moom ci biir mbooleem la bokk lu ngeen def moom moom lay war ba tax lépp lu teraanga yeeg lépp lu kii war ko jàpp na di ci barkeelu ngir ngir sàkku ci tam sëriñ bi moom suñu am sax nga xam ne kon suñ baa ngi koy bëri ak cant di dina ko seeral te xam ne liggéey bi ngeen liggéey di teewee ko yéen ko ànd moom suñu am te dafa jaay ak taal mbokkam ak lépp ak taalibe jënd ko taalibe sëriñ bi waaw topp suñ bi ginnaawam diglu ndigalam bàyyi itam te di ko liggéeyal nga ko ñëpp seere suñ bi neen mi nga sant bu baax di ko gërëm di leen ko seereel di ñaan mm, yàlla yokk ko yokk ay maxaama yu bari yokk ko cërëb du Tuubaa waaw kon daal loolu doon kàddu waaw lu ci matadi maa ngi koy jégalu waaye sëñ bi moom mu lott na jikki bu baax a baax ñaan sëriñ bi ak fi amin amin amin